barki alxuraanu karim monde bi ñu toll nii boo amul stratégie hmm? ci bépp business boo mën a dugg saa yi laisse tomber wax naa fi benn wax polémique mu jur coow ku nekk gën di wax hmm. li ma waxoon mooy par exemple maa ngi woon wax maa ngi wax ci la confiance en soi dañuy wax nit yi que yàlla sax yaakaaruma ko nit yi ku nu nekk mais man damay wax souvent bu may wax damay am cible man ñi may waxal bu ñu ma déggee rek man ñi may waxal bu ñu ma déggee rek amul problème boobu d'accord ñi ma déggul nag wax waxuma ak ñëpp suñu borom dafa maandu ci jaam ñi suñu borom maandu na maandu ci jaam bi boo xam ni mën na seetaan jaamam muy souffrir ba génn àdduna te du àddu ci mbir moom mm-hmm. ñu àttee ci kaw suuf ba dara te li nga mën a am ëllëg du xam nga il faut ko nawet waaye li ñu man li ñu war a am ëllëg yëpp suñu borom bind na ko xam nga ay xaw destin lu am la dañuy jaawale ci lii bi arbitre ak destin. salaamaaleykum mbokk internet yu Ali Vision TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun dara laa leen ak jàmm ci seen émission préférée di visionnaires en action euh, comme ni ñu koy defee euh, saa su euh, di xool li nga xamante ne si ni moom moo di les jeunes yi nga xamante ne si sont des visionnaires ñu leen di dalal ci suñu ay plateau di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne si ni moom mooy jëmale lépp loo xamante ne si avantage la pour la jeunesse sénégalaise loolee waral ñu nekkaat ko ak tey ki nga xamante ne si nii moom moo di ab jeune sénégalais xale koo xamante ni si nii buñ ko waxee euh, wax jeune boo xamante ni si ambitieux un jeune boo xamante ni si nii euh, euh, visionnaire la jeune boo xamante ni si nii la kuy jariñ la jeunesse sénégalaise la ñu dalal ko tey ñu xam ko ci Falilou présentateur ñu xam ko sur les réseaux sociaux Fallou maa ngi lay nuyu. Madara maa ngi lay fay di nuyu sa mbokku internet yi lay suivre di nuyu seen sa réalisateur yi si ginnaaw di nuyu sénégalais di nuyu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi toog du suivre émission bi di la nuyu baax a baax di rafetlu seen liggéey yéen ngi def lu am am solo ah, di nuyu Aliou Vision ah, ci ginnaaw caméra bi jërëjëf euh, merci beaucoup jaajëfal ko bu baax euh, noonu lañ koy defee saa su euh, di xool ci askan bi jeunes yi nga xamante ni si ni ay visionnaire la jeunes yi nga xamante ni si nii seen li nga xamante ni moom moo di ay contenu luy jariñ askan bu Sénégal la ñu leen dalal waxtaan ak ñoom gën a partagé li nga xamante ni moom moo di seen xam-xam ak la jeunesse sénégalaise ñu gën leen wan a mën a wane gën leen promouvoir ngir rek ñu gën di jariñ li nga xamante ni moom moo di askan bi rawatina la jeunesse sénégalaise ni ma koy waxee saa su ne visionnaire en li ko tax a jóg moom mooy wane Euh, les jeunes euh, visionnaires ngir rek ñu gën a mën a wane seen capacité ak seen ay créativité ngir rek ñu mën a anticiper li nga xamante ni moom moo di l'avenir surtout euh, bi nga xamante ni si moom mooy bu jeune sénégalais bi Fallou yow tey ñu dalal la encore comme mm-hmm. ni ñu ko defee ak yeneen ñoo xamante ni si ni li ngay def la ñuy def nekk ci yi di ñaax la jeunesse mm-hmm. di leen yokk xam-xam di leen yokk courage tey tamit ñu choisir la aussi ce n'est pas pour n'importe quoi moo tax ñu choisir la c'est parce que liggéey bi ngay def moom solo mm-hmm. on te suit partout ñun dañ lay suivre moo tax ñu dalal ko tey et euh, ça fait ça me fait vraiment plaisir euh, bokk ak moom waxtaan franchement parce que euh, sont des jeunes yoo xamante ne si nii bon dafa ma koy wax sa Ali ne ma tey dafa mel émission tey dafa particulier ci <laughs> ma ne ko kuñ dalal la moo tax franchement c'est ça xaw a particulier trop ci man ça fait mm. plaisir di toog ak ay jeunes yoo xamante ne si nii boo toogee ak ñoom xëy na xam-xam la ci jëlee après quoi ça fait plaisir d'être là vraiment moo tax tey ñu dalal la comme tey nuñ ko defee ak yow ëllëg noonu lañ koy defee aussi ak euh, beneen jeune parce mhm. que vous êtes nombre macha allah euh, ci ci ci réew mi donc mhm. c'est normal euh, ñu leen di promouvoir mhm. donc tey ñu fas yéene am ak yow waxtaan bu yaatu jëmbale ci ndaw ci biir réewam jëmale ci li nga xamante ni surtout mooy développement personnel bi nga xamante ni dañ ci appuyé wu bu bëri donc avant tout dañu bëggoon xam un badara bu toog bëgg xam kat mooy Falilou en résumé waaw euh, <laughs> j'aime pas me présenter. Mm -hmm. Mais par exemple, euh, je, je, je, veux dire que Falilou, c'est un jeune. Mhm. boo xamante ni euh, comme tout le monde ah comme tout jeune boo xamante ni yàgg am benn passion boo xamante ni yàgg na ko animé. passion euh, boo xam ne yàgg na ko bëgg muy servir nit yi hmm. j'ai toujours aimé de euh, de, de servir les gens hmm. dama yàgg bëgg servir dama yàgg bëgg doomu adama dama yàgg bëgg hmm. euh, jariñ nit passion boobu yàgg ma animé nag ba tey mu poussé ma ba à tey ci li ma nekk nii amaana passion moom ma ci dugal en même temps aussi jeune la jeune laa woon boo xam ne aussi bu yàgg bu yàggoon gëm ni li mu bëgg man rek maa ko mën a man rek maa ko may sama bopp. Hmm. j'ai toujours cru que li mu bëgg ak fi mu bëgg yegg man rek maa ko mën a yóbbu sama bopp. Hmm. dama yàgg jël dama dama teel a jël samay responsabilité aussi. Hmm. dama teel a jël samay responsabilité euh, keroog rek maa ngi koy wax sama benn frère. nee naa ko jeune am na fooy tollu am na fooy tollu ci sa life. génnal famille bi sa à ki génnal say génnal sa famille demal xoolal même boo xamul foo jëm sax demal parce que loolu moom moo lay defar. Mm-hmm. maison familiale tant yaa ngi fay resté ah réussite du la yomb. zone mm-hmm. tant yaa ngi resté sa maison zone de maa ngi koy wax keroog rek zone de confort bi gën a mag mooy maison familiale. Mm-hmm. wax naa fi benn vidéo polémique euh, mu def polémique ma ne leen euh, ndaw bu bëgg a tekki. waroo bépp ndaw boo xamante ni Badara. yaa ngi topp say ndigalu yaa ngi juddu màgg xam xame di topp say ndigalu wayjur topp seeni i tànk tekki du la yomb. tekki du la yomb bépp ndaw boo xamante ni yaa ngi fi topp say ndigalu waajur juddu topp say parents topp seen ay tànk réussite du la yomb boo juddoo xam-xamee li nga war a njëkk def ci sa bopp. mooy bu amee benn nit bu la ci mën a génne. Mhm. yow la. d'accord te bépp jeune boo xamante ni aujourd'hui yaa ngi maanaam euh, yaa ngi juddu. fekk li fekk fekk fi sa papa. Mhm. bëgg topp ay tànkam. Mhm. tekki di la yomb. Mhm. d'accord di la yomb. moo tax may wax souvent ni euh, tey boo juddoo xam-xàmmee li nga war a njëkk a def mooy nga fexe ba effacer sa existence papa boo juddoo conscient li nga war a def. mooy nga effacer sa existence papa. te existence su papa bi nga fekk. nga fexe ba effacé ko nga fexe ba yow foo toog. kenn du la tudd di tudd sa papa. kenn du la tudd sa benn morom. jeune fii ak lay tudd di tudd sa papa. wala ñu tudd sa benn morom foo toog. xamal ne yow sax wasma des na. man damay fexe lu man. may fexe ba fépp fu ma toog. ñu ne doomi diw mais dañ naan diw man fu ma toog sama tur la ñuy tudd mais duñ tudd sa papa. d'accord. loolu mooy avancement loolu mooy loolu mooy jom donc passion moo ma animé woon euh, ba tey li ma nekk nii xaaruma kenn pour def ko je le fais avec passion tu euh, xaaru xaaruma ci kenn xaaruma ci lenn mbëggeel la boo xam ne dama ci nekk depuis loolu moo mu teel ma servir ma teel a jël samay responsabilité aussi teel a jël ay risques mm-hmm. mosuma compter ci kenn mm-hmm. mosuma mosuma compter ci kenn te dama leen dama leen nettali benn anecdote boo xam ne mosuma ko nettali fenn mm-hmm. euh, man dama feebaroon dama nekkoon doon jàngal xuraan à un moment ma demoon bay euh, waaje wàccee kaamil bi wax sama waa kër ñu ngi may seetaan sama yaay maa ngi koy nuyu de passage xam na li may wax ma demoon ba ay moment yoo xamante ni maanaam man dee laa gënoon jege ko dund. Mm-hmm. feebaroon naa feebar boo xam ni dee laa gënoon jege ko dund. Mm-hmm. feebar boobu bi ma ci jógee man j'étais conscient que. li ma d'après li ma nit yi expliqué parce que man j'étais inconscient ci loolu. mais am na am na benn moment ci biir feebar bi foo boo xam ne j'étais conscient que man je suis très malade. ok que instant bi dee laa gën a jege ko dund. bi ma génnee ci feebar boobu parce que man deewoon naa pare ci laa ni man je suis je suis je suis je suis né pour devenir quelqu'un ici. bi ma jógee ci feebar boobu laa ni je dois faire quelque chose dans dans ce pays là. je deviendrai quelqu'un dans ce pays te boobu kenn xamuma boobu kenn xamuma kenn xamul sax sama existence. d'accord ma ma ma ma décider ci loolu jël décision boobu. Mhm. teel ko def ci sama bopp nag. ma ni man feebar bi ma jógee nii. Mhm. c'est pas pour rien aujourd'hui ma ma ma ma génn ci loolu. d'accord lépp loo gis man ci àdduna dama gëm ni dafa am cause. Mhm. man gëm naa ni ba ma jógee ci feebar boobu nga xamante ni mënoon sama bakkan mënoon na ci des. c'est parce que j'ai une mission à accomplir. te nit nag ci bépp domaine boo mën a yëngu nag li nga war a def ci sa bopp mooy li ma doon wax sama projet vidéo précédente bi mooy nga décider gis nga Badara li lay jëlee ci point A. Mhm. yóbbu la ci point B loolu décision lay doon. il faut nga décider c'est une évidence. Mm-hmm. am na am na foo xamante ni boo fa tolloo décision rek moo la mën a jàllale te di décision boobu boo koy boo koy boo koy jël nag bu ci déglu kenn ku dul yow ci sa bopp parce que kenn gënu laa xam sa bopp ba dara. yow boo wéetee. Mm-hmm. kenn gënu laa xam li nga mën. te bu la benn nit limité. gis nga li may wax souvent confiance bi permettre nit ki mu réussir. Mm-hmm. dafa gën a xóot que ñun nañ koy waxee. confiance gëm-gëm dafa war a kawe. gëm-gëm il faut mu kawe il faut gëm-gëm kawe foo fekk nit bu gëm-gëm gëm boppam tey euh, dañ koy jugé naan ki dafa rëy. Mhm. ma ngi koy wax sama vidéo précédente bi rek man ni rëy lu baax la man pour man. Mhm. rëy lu baax la. nit da nga dul rëy ci kanamu yàlla mais pour man nit da ngay rëy ci kanamu nit dégg-dégg la laaj nag. kon rëy jom la quoi. voilà. loolu mooy man fu ma taxaw. Mhm. dinaa siggi te bépp nit bu ma taxawal ci kaw suuf di man damay gëm ni. Mhm. bu ma la gënul yow gënoo ma. ñàkk rëy boobu mooy dégage ci yow confiance mooy dégage ci yow charisme. Mhm. d'accord euh, merci euh, daal nañu am solo seen début boo xamante ni si macha allah mun nañu bu yemoon fii sax si moom <laughs> euh, franchement neex na trop bon dinañ ñëwaat sax ci ci loolu. Mhm. juste dañuy xaw a dugg un peu ci mbirum li nga xamante ni si yaa ngi ci yëngatu yaa ngi ciy ñaax askan bi. Mhm. fi nga sax mën nañu démarrer ci beneen côté mais mbirum développement personnel. Mhm. boo doon wax la jeunesse sénégalaise ci wàllum développement personnel tey lan nga leen di wax. xam nga développement personnel gars yi dañuy euh, wax souvent def perso def perso def perso man développement personnel y a plein yoo xamante ni aujourd'hui mën nañu rëcc ci ñoom ci côté def perso mais pour man lenn rek moo tënk développement personnel loo xam ne mooy base bi. Mhm. muy confiance en soi. la confiance en soi la confiance en soi c'est l'état d'une personne à ne pas douter delle mhm. mais pour man dépasser na foofu. la confiance en soi nit gëm-gëm il faut partir au-delà hmm. de ce que tu tu tu peux faire et toi psychologiquement hmm. il faut partir au-delà de ce que tu peux faire d'accord man loolu mooy confiance loolu mooy loolu mooy base lépp xam hmm. te développement personnel jeune jeunes bi dañu war a investir ci xam-xam il faut booy ñu investir sama moroom yi nga xamante ne ñoom laa ko sañ wax ñu investir ci xam-xam. parce que xam-xam mooy lépp bara xam-xam mooy lépp yow man mën nga ma fi ma toog nii mën nga ma déshabiller. bàyyi ma fii wala nga sànni ma ci mbedd bi. bu ma xëyee nga gisaan ma ma mel ne ma meloon. lu ko waral parce que yàlla jox na ma xel xam-xam. xam-xam mooy lépp man dama teel a bëgg xam-xam dama teel a gëstu dama teel a yàgg bëgg découvrir quoi. man par exemple su ma su ma découverte daf ma yàgg neex. su ma gisee benn nit ñi takk lu may njëkk xool ci yow dama naan kii nan na nan la ma mën a apporter psychologiquement. je suis une je suis une personne très euh, psychologique je suis très euh, su ma toogee ak yow li may njëkk euh, suñuy waxtaan fi may pousser débat bi man ak yow mooy loo ma mën a servir. ok comprendre noonu laa def yàgg bëgg aussi fréquenter ay nit yu ma ëpp xam-xam. Mhm. yàgg bëgg toog ak ay nit yoo xam ni. ñoo ma ñoo ma sut. Mhm. xam nga man mosu mosuma fréquenté sama morom. d'accord te j'aimais trop les détails aussi par exemple dama doon rencontrer ay nit yoo xam ni je les connaissais pas. Mhm. mais yenn détails yu ndaw yi dama leen ci doon laaj ay affaires yoo xamante ni voilà par exemple rencontrer un inconnu dans la rue laaj ko benn question comprendre nga mu tontu la parfois nga rencontrer un inconnu boo xamante ni mën na la wax lu mën a defar sa life. Ah donc les détails c'est tu vois les détails c'est important donc euh, jeunesse bi nañu investir ci xam-xam et sur ce il y a des livres qui existent yoo xamante ne aujourd'hui euh, mën na mën na mën na jariñ ndaw ñi hmm? mën naa ci liir quelque mën naa ci lim quelques livres ab xam naa loolu dinañ ci ñëw ci kanam voilà donc euh, mu nekk dañu nekk ci monde boo xam ni amatul excuse pour wut xam-xam. am xam-xam léegi am amatul excuse quoi. parce que avec l'internet lépp loo bëgg. Mhm. mi ngi fa. y a des livres audio hmm? des livres de développement personnel qui existent gars yi bind nañ bàyyi fi xam-xam mi ngi fi. mais booy dañ dul investir ci xam-xam ils préfèrent jël seen téléphone dugg TikTok seetaan des trucs inutiles. de te yi nga am na foo xamante ne boo fa bëggee toll sax boo fa bëggee yegg bala na. Mhm. il faut déjà nga nga nga raxas sa servo maanaam nga nga nga nga nga nga nga tàggat ko. mu mhm. discipline ci di ci di concentré wu ci lu lay amal njëriñ. Mhm. sa cerveau il faut mu discipliner di concentré wu ci lu lay amal njëriñ faut éviter la distraction man dama toll foo xam ni mënatuma seetaan lu mu amalul njëriñ am na benn exercice boo xam ne dama ko dama ko dama ko doon def dabit d'habitude parfois nag bon y a des y a des y a des petits plaisirs yoo xam ne dañ koy soxla. Mhm. nga am dugg TikTok seetaan benn vidéo yaa ngi reetaan t'as besoin de ça. oui soxla nga ko mais ça t'empêche d'avancer mais par exemple exercice boobu man li ma defoon mooy par exemple su may seetaan benn vidéo cinq secondes cinq secondes après la vidéo je me pose la question vidéo bi may seetaan lan la ma mën a apporter qu'est-ce deux deux ou trois secondes après si j'ai pas la réponse je zappe même si li li may seetaan nous ça me fait plaisir. c'est une boo xam ne dama ko dama ko dama ko développé sama sama jëm bopp. Mhm. moo tax mënatuma concentré wu ci lu ma amul njëriñ. dugg TikTok seetaan des choses les réseaux sociaux léegi c'est pour gagner de l'argent. ouais. aujourd'hui tu euh, euh, boo demee États-Unis wala nga dem France ak foo mën a dem. ay mhm. boo yu ndaw ngay gis ñoo xam ne. internet nañ ci gagner ay millions par mois. donc euh, fàttali sax dawuma la loolu moo nekk suñu numéro tey dimanche bi war a dugg à 21h avec Pape Morlo comment gagner de l'argent sur YouTube Pape Morlo que je on a tourné avec lui c'est ah euh, oui sama koy nuyu de passage. oui tu vois donc il y a énormément d'opportunités mm. que les entrepreneurs peuvent utiliser pour mm. gagner de l'argent. Mm-hmm. tu vois ce que je veux dire donc euh, il faut ñu investir ci xam-xam nag xam ni gis nga sa waay. Mm. wallaahi xam-xam rek moo wóor. comme ni ko sama waa ji Pape di waxee xam-xam du pexe. du pexe oui vraiment. xam-xam moom du hmm. pexe. moo tax gis nga euh, mooy li wóor. Hmm. ba man xam naa ci dara ko ah, waaw d'accord xam naa ci dara. vraiment donc euh, euh, la jeunesse ñun ñoo ko déggandoo ñun ndaw ñi nañ uti ci li nga xamante ni moom moo di xam-xam d'abord parce que xam-xam moo la mën may lépp. Hmm. xam-xam moo la mën a may lu ñu soxla muy xaalis. waaw ah, te ba dara yoonu ndaw. jàmm bi fa mu wecc. fa mu wecc. la solitude yoonu ndam. Hmm. nit ki foog mu wéeti. Hmm. wallaahi. d'accord il faut aimer la solitude. Hmm. parce que yow ci ni ngay nekkee yow kese rek ci nga mën a xamee sa bopp. kenn gënul xam kenn bopp kenn gënul la xam sa bopp dara. d'accord boo wéetee. question yi ngay poser sa bopp. yow xam nga li nga mën xam nga loo mënul. vraiment. te gis nga am na foo xamante ni boo fa tolloo doo gis kenn tu verras personne. oui. On dit souvent que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît les bonnes personnes. C'est faux. Pourquoi Il faut faire très attention aux petites phrases. Okay. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît les bonnes personnes. Non, non, c'est pas, c'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que nit yi lay wër yëpp c'est des personnes yoo xamante ni dañ la yéene. wala dañ la bëgg. loolu tamit niveau la de li ngay wax nii. non dafa am ñuy tombé ci piège boobu. ok que am na ñoo xamante ni mënuñu nit mënuñu yéen nit lu baax. Hmm? fii yaa ngi nekk ci avancement nekkoo ci avancement dañ lay bëgg ñoom. waaw dégg nga lax am na ñoo xamante ni période bi. Hmm. fii ak yaa ngi torox moom amuñu. amuñu problème ak yow fii yaa ngi torox amuñu ak yow problème. ok fii ak ñu ngi lay gis di li yéen a sarax. Hmm. amuñu ak yow problème. am na nit yoo xam ne fii ak yaa ngi tolloo ak ñoom niveau amuñu ak yow problème. xam nga fan la problème bi démarré ba dara. Uh-huh. boo demee ba sa niveau yokku nga dépassé yow niveau bi nga tolloon ak ñoom. foofu la problème di commencé. Hmm. nit ki fii ak moo tax moo tax il faut euh, chaque jour dama koy dégg nag nit di ko wax. c'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît les person personnes tu peux traverser des moments très difficiles et avoir des hypocrites à tes côtés mën nga traverser ay te li li ci gën a doy waar sax ma wax la ko ba dara. Hmm. am na nit yoo xam ne par exemple moment moment difficile yi ngay traverser yow. Hmm. ñi lay wër parfois ñu si ëpp ci ñoom xam nga lu leen di neex. sentiment bi ñuy gis sentiment bi ñuy am. di la gis di la di la gis ci situation ci situation yooyu di la yërëm. ça existe. waaw mm, am sentiment yi ñu am di la gis ci situation yooyu di la yërëm moo leen fa baax mais c'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que toutes ces personnes qui t'entourent c'est des yoo xamante ne dañ la yéene et cetera. faut faire très attention. ma maman m'a dit souvent. non c'est faux li ma wax nii daf ma koy wax lu souvent vraiment. non c'est faux. Mm-hmm. il faut il faut il faut il faut savoir différencier les choses il faut savoir faire la part des choses il faut savoir reconnaître les bonnes personnes et les bonnes personnes nag doon reconnaître ci ay moments difficiles boo demee pour man. Mhm. dans le c'est dans le cas contraire. demee ba am. boo demee ba am ci ngir reconnaître les bon personnes. d'accord. donc euh, ñoo ko déggandoo encore une leçon beneen leçon encore dugaat na quoi euh, mu nekk loo xamante ne sii nii.

doo ko doo ko doo ko réccu et puis maa ngi ko wax sànq euh, un ami. Mhm. Euh, mu nekk koo xamante ni tamit euh, ambitieux et tout comme ça ma ni ko man j'aime moom faa yu ma mhm. loo xamante ni si nii franchement même bu fekkee bi mhm. may sotee par Mor Lo jëmale ci wàllum YouTube. il a moom te moom dama seetlu benn affaire ci moom aussi su ma sotee yu mel noonu rek lay commentaire. pour dire que ni lii am na donc yokkal ju noonu. Mm-hmm. donc euh, lan ngay wax aussi tamit ci am xarit yu demee noonu après na la ñuy def aussi ba mën a am des amis comme ça. entourage. ba mm-hmm. da nga da nga souligner point bu am solo. Mm-hmm. la moyenne. cinq personnes qu'on fréquente le plus. booy fréquente cinq millionnaires cette citation qui dit booy fréquente cinq millionnaires. yaa doon sixième bi. ok booy fréquente quatre pauvres. Hmm, ci pauvre ngay dee. il toujours fréquenter des gens yi nga xamante ne des personnes qui te poussent vers le haut. Mhm. des personnes yoo xamante ne aujourd'hui yéen bokk mentalité yéen a bokk ñoo leen di demee. Mhm. tu vois te bu leen mës a ànd ak ak ay nit yoo xam ni bokku leen gëm-gëm. Mhm. wala nit yoo xam ni yéen a leen sut gëm-gëm man du ma ànd ak koo xam ni man maa la sut gëm-gëm du ma ànd ak yow. ok su may àndal damay ànd ak ñoo xam ni. seen gëm-gëm ñoom ñum yow man dépassé na ma man moo tax du may fréquenter samay morom. fu mu fekk je suis avec des personnes yoo xam ne ni ñu ma vingt ans jëm kaw. ok moo tax très important. il faut il mm-hmm. faut il faut ça il des bonnes personnes. il faut s'entourer des mm-hmm. euh, personnes yoo xamante des personnes positives. Mm-hmm. des personnes yoo xamante ni lépp loo loo bëgg. ñu ne la ñu ne la mën nga ko def des personnes yu lay loo sa bopp. tu vois. d' waaw ah, des personnes yu lay gëmloo sa bopp. d' donc am na solo euh, ba tey ñoo ko déggandoo l' entourage li nga xamante ne sii nii euh, dafa bokk lu am solo ci li nga xamante ne moom moo di jaax jaaxu doomu aadama. ñu si bari seen entourage moo leen tere avancé ah. waaw si bari seen entourage moo leen tere avancé moo tax. franchement foog ñu cekkee seen entourage bi. parfois gis nga boo boo boo boo boo boo sentir ni yow avancé dala jafe. Mhm. xoolal sa entourage reculer tu revois les choses. d' accord d' accord nekk na am solo parce que tamit dañ koy dañ koy dañ koy wax des fois. boo ànd ak nit sax. genre euh, li nga wax sànq rek laay xaw a confirmer euh, que ni euh, nga ànd ak quatre personnes. yow sa niveau xëy na sa xalaat sax romb na foofu mais pour nga poser les dafay nekk problème. Mhm. parce que ñi ngay àndal tu vois pas ñuy poser les actes. yoo xamante ni si dafa leen permettre ñuy avancer aussi. exactement man dama am benn affaire boo xam ne dafa dafa nekk ci man muy que fu ma toog. Mhm. je souvent silencieuse. ci yenn situation yi. d'accord foo ma fekk ci mbooloo sama wax bariwul. pourquoi. parce que tout simplement man ma toogee ci mbooloo. Mm-hmm. su ma analyser déjà la situation xam ne ñii lañ may li ñuy wax amaluma njariñ. Mm-hmm. tu ne me vas pas parler. wala soit mën nga ma gis ma toog ba ci àgg ma jug dem. Mm-hmm. ma tax fu mu fekk je suis seul. ma yóbbu ci benn solitude bi. d'accord waaw. la maa ngi ko doon wax keroog rek font des armes les plus puissantes. nit day saxoo noppi gis nga monde bi ñu toll nii sa waay. Mhm. noppil di jëf. bu gaa yi di wax. Mhm, yow de liggéey. te fu bu nit booy dem da dem ak stratégie. liggéey bu metti bu fayoon tey suñuy maam ay milliardaires la ñu doon. franchement. parce que boo xoolee ñu liggéey liggéey yu gën a métti Sénégal. moom monde bi nekkatul foofu ba dara bokk ci famille yi gën a monde bi nekkatul foofu. ok liggéey bu metti ak ay yeewu teel a yeewoo ki ma xamul ça ne ça ne marche pas. monde bi monde bi moo dépassé foofu ba daal. mais tamit loolu tamit c'est important parce que Sénégal léegi mënuñu gis góor buy nelaw ba dix heures. <laughs> am na ñoo xam ne ñu ngi nelaw ba dix heures. même bu ñuy nelaw il gagne de l'argent. c'est ça le problème aussi. je je je connais des entrepreneurs même quand ils dorment frère ils gagnent de l'argent ils se réveillent à vingt euh, à midi wala treize heures jël seen machine toog liggéey. Uh-huh. bi moo dépassé foofu. Mm-hmm. léegi il faut partir de manière stratégique nit il faut maa ngi koy wax keroog gis nga tu peux avoir tous les moyens madame. Mhm. mais si tu n'as pas les stratégies tu ne vas pas y arriver. d'accord franchement il faut être stratégique. Mhm. monde bi dépassé na ay liggéey yu metti ay xëy teel a xëy guddee wàcc am na ñoo xam ne ñu ngi teel a xëy di guddee wàcc te ba léegi li ñu bëgg mënuñu ko am financièrement mënuñu avancer. mais on doit se poser les réelles questions quoi léegi y a des techniques qui avec le on vit dans un monde digital aujourd'hui oui il faut aussi ñu adapté wu ci monde bi ñu nekk. Mhm. am na ñoo xamante ni naa wax benn secret. Mhm. la plupart des entrepreneurs. di j'ai des millionnaires ah. la plupart des entrepreneurs. liggéey bi ñuy bi ñuy bi leen di may xaalis. liggéeyuñ ci du seen compétence. ok la plupart des entrepreneurs liggéey bi leen di may xaalis du seen compétence. ok on les réelles questions lu waral loolu. aw ma compétence je comprends bien ñoom mën nañ def par exemple quoi formation bi mais leen may xaatu formation bi ñu def. mën nañ bañ a sax formation bi. ok c'est-à-dire amuñu formation defuñu formation amuñu compétence ci may xaalis. ok peut-être am nañ beneen compétence boo xamante ci lañ ne ci la ñu liggéey. mais li leen di may xaalis dëgg. ci amuñu compétence boobu. da lay dox benn exemple xam nga boo jëlee un entrepreneur comme Aziz Ndiaye aujourd'hui le le kii de euh, le PDG de Jador je pense. mu créer Jador Jador oui. Aziz Ndiaye ban ban ban compétence la am pour créer Jador pour créer diwlin ban ban compétence rek la Aziz am. en tout cas ci lañ ko xamee. stratégie frère man j'insiste sur ce mot. Hmm. moo lay may xaalis de. oui. barki alxuraanu karim monde bi ñu toll nii boo amul stratégie. Hmm, ci bépp business boo mën a dugg. saa yi laisse tomber quoi. d' accord te nag bépp milieu booy dugg ba dara. Mhm. ñëwul ci milieu boobu pour nekk le number one. buy ñëw fii. Mhm. yow gëmal ni fal yu présidentiel bi nga jàkkaarloo nii. Mhm. sa waay déwén da ko war a dépasser moom fi niveau nekk. man loolu laa gëm de dama je suis venu dans pour être le number one bépp milieu booy dugg dis-toi que je suis venu pour être le number one bépp dugg yow te pare woo pour nekk number one ci milieu boobu. laisse tomber ça vaut pas le coup. d' accord je suis un exemple lu ma mos a dund. Mhm. Euh, ma première année à l'université euh, euh, jour ñu amoon des problèmes c' mhm. était réel quoi à mhm. l'université problème de nord ci jaxasoo affaire yooyu noonu bon j'avais la moyenne mais pas tellement en fait rendu à la maison. sama papa daal ma pourquoi nga am bu ndaw bi ma ko non du mën kese de on malgré on mu ne même bu fekkee ñëpp amuñu moyenne sax yow su moyenne bi gën a mag yaa ko war a jël. ce qu'il m'a dit pour m'encourager au fait. mu ne ma sous-marin bi nga xamante ni moom moo gën a mag euh, yow yaa ko war a jël pour dire que ni kon lu ñuy dugg rek même bu fekkee que ni tamit kii nañ fexe jël première bi nañ fexe nekk le number one. ci ci ci ci lépp donc euh, si la ma yàgg a encouragé. c'est euh, benn année moom. donc moo tax à chaque fois. daf ciy baax les mhm. parents aussi. ñuy encourager c'est très important d'écouter parents. Mhm. sur ce mhm. par exemple parfois aussi mën na am yoo xam ni dañ lay motiver. du ñëpp loo gis am na exception. am na exception bi. Euh, mais nag euh, faudrait savoir que benn yaay. wala papa mhm. bëggul gis doomam muy. traverser une épreuve yi. Mhm. alors que malheureusement pour réussir dans ce monde. Mhm. il faut souffrir. il faut souffrir. il faut traverser des moments très difficiles. pour arriver à un certain niveau. te benn yaay bëggul gis doomam muy souffrir ci ci loolu. franchement loolu moo leen di poussé di di seen doom ci benn confort bi. te loolu du leen arrangé. la plupart des personnes ñi leen di empêcher ñu avancer seen ay parents la. il faut être conscient que c'est un processus. Mhm. mais tôt ou tard je vais y arriver. Mhm. li nga war a njëkk def booy booy booy suubu ci benn yoon. mooy nga mhm. consciemment nga def nga def ci sa bopp que ni processus la. Sëriñ Tuubaa wax na ko ci euh, Masaalikul Jinaan je pense bépp bunt. booy booy fëgg taxaw fa. bañ a dem. bu yàggee mu tijjeeku. mu xëcc bu daggul dina ñëw ba dara. mbaa mu yennoo teng. Hmm. xëcc bu daggul dina ñëw mbaa mu yennoo teng. Hmm. waaw d'accord waaw te man li da ngay gëm ni lépp loo xalaat war na mën a nekk. Hmm. impossibilité existeetul il faut qu'on arrête de se mettre des limites ñun ñooy limiter suñu bopp rek. mais yàlla limité wuñu yàlla dafa bëgg yàlla wax na ko. dafa bëgg jaam bi nuru ko ci ci ci benn jikko muy volonté. volonté waaw wax naa fi benn wax polémique. mu jur coow ku nekk gën di wax. Hmm. li ma waxoon mooy par exemple euh, maa ngi woon wax maa ngi doon wax ci la confiance en soi. oui dañuy wax nit yi que yàlla sax yaakaaruma ko. ñi hmm. ti ñi ti interprété ko vidéo qui a fait beaucoup de polémique ñi ko nu nekk. Hmm. mais man damay wax souvent bu may wax damay am cible. man ñi may waxal buñ ma déggee rek man ñi may waxal. buñ ma déggee rek amul problème boobu. d'accord ñi ma déggul nag wax waxuma ak ñoom boroom suñu borom dafa maandu ci jaam ñi. suñu borom maandu na maandu ci jaam bi boo xam ni mën na seetaan jaamam muy souffrir ba génn àdduna te du àddu ci mbir moom. yàlla du ñu àttee ci kaw suuf ba dara. te li nga mën a am ëllëg. duñu xam nga il faut qu'on aille waaye li ñu man li ñu war a am ëllëg yëpp suñu borom bind na ko xam nga ay xaw destin lu am la dañuy jaawale ci bi arbitre ak destin. loolu la nit yi di jaawale lépp lu ñu war a am ci kaw suuf sunu borom bind na ko philosophie boobu il faut nit yi génnee ko seen xel. Mm-hmm. ñu gëm ne ñoom ñoo mën ñoom ñoom rek ñoo mën a trave ñoom rek ñoo mën a bind seen yoon jaar fa nu mu leen neexee. Mm-hmm. mais wéy li war li ma war am ëllëg suñu borom bind na koo toog di xaar yàlla yàlla du mës a ñëw. waaw lu ko olof Ndiaye di waxee yàlla yàlla. bay sa tool. d'accord waaw. d'accord ci loolu la ñu ba tey dañu gis tamit ci benn vidéo. Mhm. yaa ngi wax que ni euh, lu ñu lu naxee mooy que ni euh, mbirum nattu yàlla nga ci doon wax. waaw nattu nga dem bay wax que ni euh, <laughs> nattu yàlla xajul si nit. lu ñuy naxee mooy que yéen day ñëw ñu ne la nattu yàlla la. dogalu yàlla la dogalu yàlla la. oui ay dogalu yàlla la nattu xaw ma lan. Euh, gis nga nattu yàlla xajul ci mbindeef ni ma ko waxee woon rek laa koy waxee ti waa koy waxe waat fii. Mhm. ba dara suñu borom nattuwul kenn ci kaw suuf. nattu gars yi il faut ñu il faut ñu gëstu ñu xool xam lan mooy nattu ba pare. Mhm. nattu maanaam lépp lu dal jàmm bi dama dama gëm ni euh, suñu borom da koo sauvé. suñu borom bu la naree sauver da lay da lay da euh, euh, lay da teg yenn coono yi. Mhm. mais loolu mënuñu ko tuddee nattu. Mhm. donc lépp lu dal jàmm bi rek yërmande yi suñu borom la ci moom. da laa sauver. moo tax euh, gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga moo tax j'aime trop la spiritualité. Mhm. nit kii dafa war di xool digganteem ak yàlla lan mooy lan mooy lan mooy cëru bi yàlla ci moom. jaam bi dafa war di xool souvent lan mooy cërub yàlla ci moom ban cër la am moom ci yàlla. Mhm. tu vois. man ku gëm yàlla laa nag. Mhm. ku gëm sunu borom laa. gëm bi ma ko gëm wóolu ko ci gëm boobu laa gëm sam bopp nag wóolu sam bopp. Mhm. sunu borom daf ma teral. d'accord suñu dafa teral jaam bi. d'accord. donc euh, ñu ñëw ci mbirum li nga xamante ni moom moo. tera ma ma jeexal foofu. d'accord par exemple ngay sunu boroom ci ah. jaam bi. Hmm. mooy yàlla bind la ngay doomu aadama mu jox la xel ngay xalaat. Hmm. jox lay bët. Hmm. te jox ko sa moroom jox la jox la gémmiñ. jox ko sa morom. jox lay tànk xañ ko sa morom. jox la xel jox la lépp lu war. pour nga am li nga bëgg. pour man jàmm bi retourné waat di yaakaar leneen ci suñu borom man gàcce laa ko jàppe gàcce la ci man may retourné waat di yaakaaraat leneen ci yàlla ndax suñu borom teral na jàmm bi. Mhm. jox na ma xel matukaay yi ma matukaay yi war pour ma am li ma bëgg suñu borom jox na ma ko. Mhm. suñu borom man xamal la laay def fu ma toll alhamdulilah rek laay wax. Mhm. dox nag jëm ci li ma bëgg. d'accord. gëm-gëm boobu laay demee. merci euh, am na solo ñu ko déggandoo euh, mu nekkee kàddu yu am solo ñu ñëw ci mbirum jugement sànq yaa ngi koy wax mbirum développement personnel. Mhm. ñu nemmeeku tamit li liy freiner surtout euh, nit ñi ñuy am confiance en soi. Mhm. développer seen bopp mbirum jugement tamit ci la bokk man j'en suis comment dire. parfaite illustration. kenn euh, nii mhm. <laughs> des fois da ngay am problème boobu noonu. man des fois ma la fay ma la di. Mhm. que surtout le mot da nga waane. tu n'es pas simple. Mhm. man ma la di c'est pas ne c'est le bon c'est le bon ou mais dama la di pourquoi may simple en fait c'est que je dis de. waaw moo boobu moom. bépp xale boo xam ne ne euh, nekk nga ci yoon am jom. genre moo yooyu da nga koy dégg. da nga waane. Euh, da nga Euh, simplo yu demee noonu mais nit noonu la gis nga moo yooyu nopp li mu tënk mhm. boo ko xoolee base bi confiance la confiance moo yooyu noonu yëpp lu ko tënk mhm. base bi confiance la moo tax moo yooyu fii yaa ngi koy dégg mhm. ah, jàppal ni yow yaa ngi ci yoon baax bi mm. fee gaañ yi ñu da nga waane da nga danga danga kii da nga da nga yooyu da nga yooyu fii yaa ngi koy dégg rek xamal yaa ngi ci yoon baax bi parce que bu ñu la doon gis ci beneen situation doo ko dégg de. bu ñu la doon gis ci beneen situation ngay ngay ngay torox foo gis ñu la yërëm. Mhm. man la ak xool ko waaye di man bi. kii di sa waay fii la ne tekkiwul dara. Mhm. tekkiwoo woo dara la lay wax. danga nga waane moom foo ko déggee ay ñii kii xam gënal gënal waane yow. Mhm. ci yoon bi nga ne gën ci waane gënal gëstu sax ci waane. waaw. d'accord parce moo yooyu li ko tënk yëpp muy li ma la wax sànq base bi la. waaw te gis nga am na yoon yoo xam ne boo ci nekkee moom yenn wax yi mënoo ko ñàkk bañ a dégg mais euh, gis nga euh, ñu ci ëpp ci nit yi leen sonal mooy le regard des autres. Mm-hmm. lan la nit yi di xalaat ci ñoom mais nag bul jël poids bu diis di ko teg foofu nit yi leen nit yi en réalité nit yi li ñuy xalaat ci yow. Mm-hmm. ñoom la intéressé. nit yi li ñuy xalaat ci yow ñoom la intéressé parce que xam nga ñoom la yow nit koo xam ne bokk leen fa leen juddoo. bokk leen noo noo leen juddoo. Mhm. bokk leen noo leen yaroo bokk leen philosophie bi ñu demee kooku ngay xalaat lu muy xalaat ci yow. Mhm. ngay jël pouvoir di ko teg ci lu muy xalaat ci yow. erreur mënul weesu loolu. Mhm. moo tax nit ku nekk li muy xalaat ci yow moom la intéressé. sa manière de fonctionner sa manière de de de de vivre. sa manière de voir les choses. nit ku nekk rek euh, dafa am nu muy nu muy nu muy nu muy nu muy fonctionner quoi psychologiquement. Mhm. donc le regard des autres mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bloqué jeunes yu bari. Mhm. mais nag euh, nit moom mooy li may wax souvent am na foo xamante ni boo fa tolloo sawaay bul bul déglu kenn. bu amee benn nit boo war a déglu yow la yow la sa bopp. man bu ma nekkee fii tey parce que dama déglu sam bopp. Mhm. dama déglu sam bopp. te le chemin vers le succès n'est jamais une ligne droite. Mm -hmm. jeunes yi am na foo xamante ni bon il faut am na ñoo xam ne il faut ñu wax leen ko quoi ñu xam ko am na yoo xam ne duñ ko bëgg a dégg man man man bu may wax waxuma pour ñi lu neex nit yi. Mhm. man damay wax li nit yi war a dégg jeunesse bi li ñu war a dégg man la leen di wax képp kuy xaar may wax lu la neex. Mhm. ah wala may xaar wala may wax loo xam ni wala may sóoraale ci li may wax. day boo nga xam bay boo nga toog te xam ni doo ko doo ko dégg ci man quoi parce que lépp lu may wax dama koy wax parce que je le sens parce que c'est la réalité il faut oser regarder la réalité en face mm-hmm. man dama dama dama dafa may ay moments yoo xamante ni dama fa tolloon sama live dama tëju ci nekk mm-hmm. poser sama bopp ay question yu bari mm-hmm. planifier li mu bëgg fexe ba am réponse à ces questions la ma dox nag jëm ci li mu bëgg dégluwuma kenn dégluwuma dégluwuma kenn ku yàlla bi bind man aw ma xarit aw ma àndandoo fu may dem personne ne m'accompagne je suis toujours seul je toujours seul bépp nit boo xamante ni yaa ngi basé wu ci moom bépp nit boo xamante ni yaa ngi wéeru ci moom. ëllëg mën na moom mën na doon ki lay poignarder dans le dos. même ki ngay tëddal di yeewal ak moom. di yeewandoo ak moom di defondoo ak moom lépp kooku mën na doon ki lay ñax dans le dos ëllëg paak bi lay rendi hmm. sa waaye koy daas jox sa noonu. Hmm. wax boobu lu wér la. Hmm. waaw et les plus grands hommes ont toujours aimé la solitude. am na solo euh, beneen partie bi wàllum mas nañ ko seetaan sax ci ay vidéo nga wax que ni même si dafay bii moom dama koy généraliser nga ni xëy na jigéenu Sénégal yi moom euh, pourquoi mbëggeel sonal leen mooy war question bi c'est vice versa góor yi tamit la même chose et puis loolu euh, fàllelu en tant que jeune fan la mën a yóbbu nit ki wala nan la ko mën a delluwee si ginnaaw surtout jamono bi ñu toll nii ak niveau jeunesse bi di defee waaw mbëggeel moom man mbëggeel moom dafa nekk baat boo xam ni. Mhm. Euh, je pense que nit ci dañ koy dégg nii rek mais xamuñu exactement au fond lan mooy mbëggeel. oui waaw. Euh, j'ai trop de question à poser à ce sujet-là ba léegi amaguma réponse à ces questions la dañuy wax souvent le véritable amour wax naa leen ko fii mu ne le véritable amoon n'existe pas ba dara wax ma ban ban nit moo la fi bëgg ba nga jaral ko bakkanam non ban nit moo la fi bëgg. coono sax doo leen ko jaral. voilà ban nit moo la fi bëgg rek ba nga jaral ko boppam yow wax naa ko fii sama yaay sa yaay rek moo lay bëgg bëggeel boo xam ne ma dara boo demoon ba nekk ay morso ñu teg la sur table mbëggeelam di yokk ci yow. mbëggeel boobu sa yaay rek moo ko am sa soxna sa doom la sa jarbaat kum mënti doon. bés da nga dee ñu suuli la ñu continuer seen vie di dund pour te dire que amul benn nit bu la fi bëgg ba gunge la sa biir bàmmeel te gis nga euh, xale yi jigéen ñi <laughs> man moom dama leen attaqué bari na xam naa ni. xale yu góor yi laa gën a sonal mais il faut il faut ñu xam ni euh, am na foo xamante ni boo fa toll mooy il faut écarter certaines choses quoi. mbëggeel ak ay non am na loo xam y a des priorités la vie il faut sax prioriser les tes tes tes te euh, li nga bëgg quoi il faut ngay prioriser sa ay bëgg-bëgg. foofu xam hmm. nga ji ëpp ci xale jigéen yi may woo loolu may wax ay ay sama problème ak sama far bi pour ñoom seen àdduna lépp mbëggeel la. àdduna bi léegi ay ay maanaam boo waxul ci mbëggeel sax dafa mel ni yow existé woo ko waa alors que y a des choses y a des choses beaucoup plus importantes. booy nañu concentré wu ci seen avenir nañu mm-hmm. concentré wu ci seen bopp fukki ci sa yoon wow du ma leen wax nag du ma leen wax nag duñu bu ñu choisir par exemple euh, euh, bu ñu bu ñu bu ñu nañ nekk ci seen yoon rek bañ a xool ay jigéen ak yooyu ay nit lañ quoi tu vois parfois nit ku nekk soxla nga par exemple une personne qui est là boo xamante ni moom moo lay pousser vers le haut mm-hmm. tu vois une personne boo xam dina am lu am lu mu la apporter mm-hmm. mais à partir du moment où nga di ngay dem ba choisir Badara. choisis cette personne qui sera là pour toi. choisis cette personne bi nga xamante ni moom moo la mën a jëlee ci point A yóbbu la ci point B. choisis cette personne bi nga xamante ni psychologiquement elle est structurée. choisis une personne euh, boo xamante ni aujourd'hui ak lu métti métti métti métti même boo demee ba nar bàyyi say loxo cette personne sera là. pour te dire que vas-y tu peux le chaque grand homme il une grande dame. c'est très important ngeen ngeen choisir une femme boo xam ni une une la bonne la bonne la bonne femme ah waxuma ay booy yi nga xamante ni booy soko soko yi nekk ci réseaux sociaux yi nga xamante ni booy Instagram lañ ay booy TikTok wala ñi nga xamante ni ay il faut nit yi déjà booy choisir li nga war a nekk question bi nga war a njëkk a poser sa bopp ki ngay choisir nii lan la la mën a apporter à l'avenir c'est ça le plus important. lan kii ma bëgg nii kii ma bëgg tànn lan la ma mën a apporter jeunes yu bari tey échec nañ li leen échec loo jabar moo leen ko teg faute bi ñu def mooy choisir luñ choisir luñ la bonne personne. Mhm. jeunes yu bari échec nañ jabar moo leen teg loolu jabar takk jabar mu toog sa diggu bopp bi. Mhm. Hmm? problème guddi problème bëccëg. ni mu amee ci góor yi si noonu la amee ci jigéen yi jigéen il faut nga choisir l'homme boo xamante ni ki nga xam maa ngi koy wax démb rek. Hmm. ki nga xamante ni moo war a nekk sa papay doom ëllëg ki war a nekk sa papay doom ku jar choisir la. Hmm. ni góor di choisir jigéen noonu la jigéen aussi war a choisir l'homme idéal pour pour elle te bañ a topp ay waxu mbëggeel ak de gauche à gis nga boo jëlee say sentiments mettre ko en avant. Hmm. dina muur say bët. ba yow li nga ki nga ki ngay wax ñi da nga ko bëgg sax faute yi les les les les défauts doo ko gis. Mhm. parce que sentiment yi mooy muur say bët. Mhm. il faut pas il faut pas choisir une personne parce que vous l'aimez. d'accord. l'amour ne suffit pas. le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'accord merci euh, d'accord ñu daal di tëjee euh, foofu noonu rek mbirum livre jëm ci mbirum développement personnel mhm. rapidement mhm. Euh, boo doon jox jeunesse bi exemple wàllum lecture fala la mën a ah, ak quelques exemples de lecture de livres du moins rapidement mhm. d'accord Badara bon man en moyenne je je cinq livres par semaine cinq livres par semaine c'est vrai qu'il a des techniques que j'utilise nag boo xam ni xam naa dinaa ko jox gars yi. <laughs> yow dinaa la ko joxe. Euh, maximum daal. Mhm. man je lis cinq livres par semaine. habitude boobu dama ko dama ko dama ko jël. Euh, en résumé quoi. donc euh, quatre livres yi daal bokk na ci livres yi nga xam ne dama koy conseil jeunesse bi. Mhm. muy les quarante huit lois du pouvoir déjà de Robert Greene. c'est un boo xamante ni c'est très important ñu ciy lire ko. Mhm. livre la boo xam ni y a des techniques de manipulation hors norme yu ci nekk yoo xamante ni ñu ci nag bu ñu ko lire pour utiliser euh, loolu pour contre une personne. Mhm. nañ ko lire pour bañ ci nekk victime. pour pour se défendre man loolu moo tax ma lire ko et ça m'a apporté énormément de choses. Mhm. beneen bi mooy comment se des amis de Del Carnegie. c'est un livre assez et intéressant boo xam ni vraiment ça m'a mhm. apporté énormément de euh, choses. d'accord waaw euh, c'est un livre boo xamante ni maa ngi koy conseil jeunesse bi. Mm-hmm. livre la boo xamante ni tey amaana bu ma nekkee nit bi ma doon tey contribué na ci baax a baax livre yi ma la li ma la fii yëpp. parce que Robert livre boobu dafa dafa développé bu baax sur la sur la spiritualité dugg na sur la spiritualité wax na si lu bëree bëri et ça m'a apporté énormément de choses euh, ban mooy euh, ak banaat l'autoroute du millionnaire. Mm-hmm. c'est un livre boo xamante ni bépp jeune entrepreneur boo xamante ni yaa ngi yaa ngi yëngu ci wàllu euh, entrepreneuriat bi. Mhm. je te conseille nga lire ko euh, surtout ñi nga xam ne dañu bëgg euh, am benn stabilité financière bi. Mhm. nga xam ne dañu bëgg discipline financière. Mhm. financièrement parce que la discipline financière c'est quelque chose très important. mën nga mën am na ñoo mën nga liggéey am na ñoo xam ne dañuy liggéey mais li ñuy liggéey duñu xam fan lay a des techniques utilisées sur ces sur ces livres ni livres yi ma fii yëpp nag je euh, euh, je je vends des livres. ok donc pour ñi nga xamante ni bëgg nañ ko. Hmm. après xam naa di nga affiché numéro bi. d'accord voilà donc ay livres la yoo xam ni. vraiment c'est important. Hmm. yoo xamante ni ça m'a apporté énormément de choses la, la lecture c'est quelque chose de très important. Hmm. waaw la lecture j'ai toujours aimé la lecture. Mhm, d' accord waaw ah, mosuma perdre sama temps ci ci ci ci ñàkk ci ñàkk lire quoi souvent damay même bu fekkee damay dox dans la sa sax parfois j'écoute des livres audio. au mhm. sport du ma sama temps ci te jànguma dara quoi. d' accord ah. solo mooy chaque jour abadala boo xëyee. Mhm. nga fexe ba même bu fekkee benn benn benn benn benn pas sax nga avancé ko. d' merci am na solo donc euh, am na solo waxtaan bi euh, Falilou dañ lay daal di bàyyi nga daal di euh, tàggatoo ak. macha allah ba ça a été un véritable plaisir de vous recevoir ici ah franchement di am mbégte ak contentement ci invitation bi Aliou Vision ay jeunes ngeen je vous vois déjà ku leen gis xam ne ñu am jom ngeen. waaw parce que ngeen dem nekk ci leneen. aujourd'hui lii ngeen nekk parce que gëm ngeen ko gëm ngeen ni lii am na fu mu leen mën a yóbbu. Mhm. état d'esprit boobu ngeen demee nag bu leen ci dara jëlee ko parce que mënoon ngeen dem jël beneen yoon wala ngeen nekk ci leneen mais tey yéen a ngi invité jeunes yu jeunes yu conscient. bëgg bëgg bëgg yee jeunesse parce que yow ngeen. voilà man dama man dama gëm ni gis ngeen yoon bi. te euh, jeune ma mooy li may mooy li ma doon wax ba démb rek jeune bu ndaw bu nekk ci yoon. am jom di di di di demee fulla ak fayda. ndaw boobu jàppale ko obligation la. man loolu laa gëm. dama gëm ne ndaw bu nekk ci yoon am jom jàppale ko obligation la. comprendre nga donc maa ngi sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ñu ngi doon suivre euh, di jox di daje xam naa ba beneen incha allah. ci beneen numéro. merci mm-hmm. Aliou Vision ko ñëpp suivre nag ñu ngi def liggéey bu am am solo ci YouTube bi. Mm-hmm. yéen a ngi mm-hmm. ah, a ngi Instagram également. ñu bu baax Falilou en tout cas bég na ci yéen. merci ah, liggéey bi rafet na. yàlla yàlla sàmm leen jërë ngeen jëf. merci très prochainement dinañ ko daal di retrouver waat incha allah rabbi parce euh, koy defee rek mu nekkoon suñ beneen numéro ci euh, visionnaire en action émission bi nga xamante ne si ni moom mooy euh, wane li nga xamante ne moom moo di euh, jeune wala ndaw yi nga xamante ne am nañ vision ndaw yi nga xamante ne seen ay capacité seen capacité wala seen créativité ñu ngi koy euh, pare pour partager ko li nga xamante moom moo di toute la jeunesse sénégalaise di partager askan bu Sénégal ñu siy daal di parce que boo xoolee ñu ngi invité boo demee si seen ay plateforme yu nekk askan bi ñu ngi leen noonu ci euh, TikTok euh, fi nga xamante ni moom moo di YouTube ba euh, fi nga xamante ni moom moo di aussi jaajëfal ko bu baax ci disponibilité bi yéen tamit ñuy seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni rek nii la ñun ak tout jeune boo xamante ni si nii tu es visionnaire rek dañ lay daal di dalal waxtaan ak yow daal di partager ak li nga xamante ni moom moo di xam-xam bi ak toute la jeunesse sénégalaise jaajëfal leen jox leen di daje très prochainement incha allah.